seen télévision yi fi xam ne nag mooy Zéro ku ñu Tivaouane wax di si Hadji fi xam ne leer balee macha allah tey nag fi xam ne mooy cinquième bi nga Seydi Hadji Malick ba mu làkkoo ba tey nekk 1927 tombé nga xam te ne nag tey jii di àjjuma allah fontaane mbatt bu tàkk kilifa ko ñëpp ñoo ne kilifa diine kilifa aada yi pour nekk amal li nga xamante ne mooy satellite bi nga xamante ni moom la sëñ Hadji Malick am ci biir suuf di ko tàmbalee tey ajuma jëm samedi jëm dimanche ba altine mbokk ñu fi xamante ne moo ci teewaan rek amal leen ñetti fan wala ñeenti fan yi nga xamante ni macha allah alxuraan la ñu fas yéene jàng alxuraan la ñu fas yéene amal fi ci Thiénaba macha allah ku dégg eh, barke bi xam ne ñu ngi doon di nodd di xani dañuy bàyyi li incha allah rek deugmal len li nga xamanteni mo am fi ci ëtt mam Sidi Hadji malik am na xamante ak tiawul li nga xamé rek batay mbokki ma sha allah fépp fo xamanteni talib jóge na fépp foo xamante kilifa jóge fa rek ñewna fi ci digi tiawul rek am na xamante ni nag anniversaire Sidi Hadji malik yo xamanteni te la am téeméeri at ci bi suuf téeméeri at bi nga xam te ni macha allah Sénégal jaa ngi ci lu bare bare bare kon nag moo kii mu ngi noonu léegi incha allah ñu am ak yéen jëmee fi nga xam te allah mooy Tivaouane ànd ak yi ñi nga xamante ni ñoo seq nañu ànd ak ñi nga xamante ni macha war a ñëw fi amal yi nga xamante ni nag tabarkaale ak sa ñaan kon mbokk mi ngi noonu dañu bàyyi digmal leen programme bi nga xamante ni moom la suñuy caméraman àndal moom la suñuy xamante ni nit àndal allah léegi-léegi mbokk ñu ànd ak yéen leen Tiwaawoon wan leen ñaani fi leen jikari wan leen xutba bi leen lépp loo xam ne war na macha allah pour ngeen xam ko ne yéen jotewu ko bu ñu bi ak ki ni mooy Kaja ak xamante ne que mooy Thiès 24 dëgg dëgg baax baax mbokk léegi ñu wan leen li am fii ci Tiwaawoon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 لما يلحق به وهو العزيز العليم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين عملوا الطواغيت ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا الناس تفهمون المرض إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تحبون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسهوا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

ông ờ, فالسلام عليكم فالسلام عليكم إني وإن كنت أثوابي مدنسة بماء عفويك أرجو غسل أقداري وسيعت من فاجر ومطيع